leen di nuyu ci sen tour ak sen sant manam nak li nga xamanteni modi suñu di jafé jafe-jafe di problème ndox ak yoon ak courant léegi ya yaakaar nañ len ci ginnaaw yalla ak yonent bi ak Serigne Touba Mbacke mbax baax mi yaakaar nañ len ci li ñu len di wax itim no ngi len di ñaan ngeen nu ci bu nexé yalla len ci li ngeen bëgg yan jafe-jafe bi ni dund modi ñakum dox lol ñak lol, courant lol, ñak yoon lol yett yi dal moy suñu jafe-jafe mom wax deug yalla bu na amé ti machine wal bo xam dañ ko tek ci koñ bi ji jigen ñi di ci wal koko dina nu neex robinet baa ngi xaw na sori torop day ta dañuy fop ay ay bureau di ko rot wala ñu tak saret di ca dem wax deug yalla son lu am da la ci deg ba waaw wax deug yalla sonu nañu lol jappale leen nu daan leen jàppale bu neex yalla te it nag wax deug yalla yaakar nañ leen ci yaakar ci mam cierno mi nga xamanteni ne nañ lu rafet limi def ci dekk bi tay nak kuy ànd da ngay and ko xamanteni da mata andal waye li ñu leen waxit nak mom ñor nañu lol aw yoon ak courant wax deug yalla mom ñor nañu akum ndox te no roto roto man mi sax dama yenu bi dong te dama koy jele bu sori. gis nga sama bopp bu ma la ko dindi doon wax dëgg yàlla sonn naa trop sama soxna sonn na jàppale leen ci. ak ah, kon mooy sunu bëgg-bëgg rek kon niñ ko waxee woon ñun sunu jafe-jafe mooy ndox sunu jafe-jafe mooy courant sunu jafe-jafe mooy yoon ndax jigéen ñi root nañ bay bëgg a dee benn jigéen rootu fi nit benn jigéen doonatu fi nit boo tege sa téléphone bu fayee di nga am semaine boo xam ne doo wuyu te boo wuyuwut doo mën a nekk en état boo rootu sang woo doo mën a dem fenn te wax dëgg yalla ku ñu dimbali ci ndox mu ñu jël ku ñu dimbali nak ñu dimbali la bu ah, ministre ki nga fi yabal wax ak ñun wax nañoo moom li ñu bëgg ak li ñu li bëgg yalla nañ daje bu dajé mu yalla nañ li ñu gënal te bu doole li ñu gënal yalla nañ ko féké nañu dimbali nag ci ndox mi ak courant bi ñu dimbali ñu yalla ak finance ñu xaaliss ñu liggéey mëna jappalé suñu borom kër yi. jërëjëf euh, sëriñ bi lim wax dégg na ko trop wax na tamit luma ñor. waaye wax na ma lu ma am yaakaar xanaa rek niñ ko baaxoo woon di waxee ministre Mame Thierno Dieng dafa nekk koo xam ne du digee day man def mënul mu wuti saa bu ma ñëw def mais am na yaakaar lool ci li ci jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen fi jàmbat day ay priorité parce que wér yaram mun ta ñàkk yoon mun ta ñàkk aw ndox mun a ñàkk ndax ku amul ku amul am ndox mënoo jaamu yàlla mënoo sangu ba set mënoo am wér yaram donc ba tax na kon lolu bu ngeen ko waxee ñun ci sawar trop kenn ku nek xam nañ tamit jafe-jafe yi nga xamni mo am fi ñun lér nañu nañ parce que biñu pick-up double cabine lañ yor ta vraiment dafa pan ci yoon bi ba dañ ko fa bayyi mu jëlat euh, téléphone wa jëlat bayen auto pour ñëw pour ñëw fi ci yeen kon su ngeen waxee jafe-jafe yoon ñun lolu vraiment dinañ ko gëm mais lima bëgg dal moy bu ngeen tëddee na ngeen nelaw te seen xel dal te ngeen am yaakar ci ni lii nga xam ne moom ngeen bëgg fii ci seen quartier bi yaakaar naa ci carton yàlla di ngeen ko am incha allah taala loolu moom rafet naa ci njort parce que li wér te wóor mooy ministre dana ko yëg te bu ko yëgee wóor na ma ne am na ci une partie boo xam ne xam naa ne dina ko daal def moom fi saase leneen li ci des nag dina ko tawat président parce que te vraiment ab yoon a courant loolu moom ku ko bëgg a def il faut état jàppale la ci mais jàpp naa ni it état ci boppam am na ci ministre Mame Thierno boo xam ni su yëgee ni jafe yi ngeen am. engagement boobu àgg ci moom yaakaar naa moom dina ci jël engagement kon daal li ma bëgg wax mooy sooy boo seen xel dal te ngeen xam ne daal ministre Mame Thierno Dieng bokkut ak ñi fi daan jaar di dige te duñ ko def moom day diglu bu déggee xool lam te man mu def lam ca mënul mu yor état ni ko li romb na ma def ko kon sooy boo seen xel dal te ngeen jàpp ne li ngeen bëgg fii danañ ko saafara incha allah taala